man peut-être sama compréhension ci népotisme du ma ko mën a rek traduire ci olof mais je pense que li ci ëpp solo mooy c'est un abus un abus que quelqu'un peut avoir par son influence jëmale ko si famem walla ci ay euh, xaritam euh, bu ñu yemee ci définition boobu su ñu xoolee li nga xam ne moo fi am euh, ba ñu mën a génnewaat terme boobu muy népotisme c'est peut-être par rapport aux nominations récentes yu fi muy am ma am ci ay jàngat yu bëri bi ci njëkk mooy damay damay gis ne sénégalais yi fu ñu toll nii euh, jàppuma ko sax malhonnêteté ah parce que man damay jàpp ne malhonnêteté euh, euh, yamul ci sénégalais rek parce que nit jikko ju rafet ak jikko ju ñaaw moom dëkk boo dem fekk ko fa léegi nag nit ki mooy xool man ca nañ ma yaree walla fa ma jógee est-ce que man damay sàmmal sama bopp jikko yi rafet yi ñu def ci man walla peut-être damay yootu beneen xar kanam mais gëm naa ne daal baax ak bon moom foo dem fekk ko ci ci ci àdduna mais népotisme lu tax mënuma ci d'accord euh, euh, boo xoolee ñun dañu am benn passion bu ñuy am ci yenn sujet et on on fait la politique ci benn aspect boo xam ne dañuy jàpp ne dañu war a sànnante ay coups ba nga xam ne euh, du ñu xool en fait le fondement ci li nga xam ne moom la nekk di di débattre quand je dis le fondement mooy tey boo xoolee der mi ngi koy wax bi ñuy commencé mu am tuuti benn benn benn sujet Euh, ci loolu noonu dañ ko toftaloon ci ñaari nit bu njëkk bi yaakaar naa ne dafa nekk le ministre euh, Fofana beneen bi mu nekk ci le ministre du transport El Malick Ndiaye ma xaw aw kerse bi ma ko seetaanee keroog yaakaar naa ci télé bi fii la sax mu doon def euh, émission faram fàccee moom ak Pam Ngañ kerse gi ma ci am mooy gis ne en fait li ajouté débat bi yëpp ci moom ay sant yu dajante la maanaam dans son staff dafa am ñaar ñetti nit ñoo xam ne dañoo sant njaay ni moom comme sant ya dajante na rek ñu ne non ñoom dafa bokk ak moom dafa bokk ak ñooñu famille commencé rek indi le terme népotisme ainsi de suite mu jaaxal ma parce que man je pense que tey bu ñu demee bay yëkkati un débat comme ça presse bi ñëpp di ci wax ba tey xëy na deer jàpp ne sujet la boo xam ne war na am pertinance ñu indi ko ci émission jàkkaarloo war nañ ko vérifier ba xam ndax li fi ñuy fi ñuy fi ñuy jëmale wax ji am na walla amul donc yaakaar naa kaawam moo ci ëppoon solo beneen kaa bi nekk Fofana. nga baal ba point d'interrogation te moo moo laaj la de. de xam naa ne laaj la moo tax ma ne. point d'interrogation li tax li tax tey laaj bi am man jàpp naa ne bu sujet bi amul woon pertinence ci ci ci gëtu sénégalais yi. Mm. tey duñ ko indi ci jàkkaarloo parce que man nag man damay damay suivre jàkkaarloo. donc jàpp naa ne jaakaarloo saa yu amee rek dañuy xool ci semaine boobu noonu sujet yi nga xam ne moo ci ëpp pertinence moo gën a indi. en tout cas des débats ñu indi ko waxtaanee ko pour les sénégalais donc ñaar ñooñu daal jàpp naa ne ñoo ci ëppoon ci ñu ci doon wax moom ak euh, Fofana mais boo xoolee Fofana aussi la même chose moo ko dal ma ne ok est-ce que léegi Sénégal bokk ak nit sant war a bokk ak moom pencum bi ngeen liggéey ndax en réalité problème la wala du problème parce que bu dee tey rek sant rek yu daje dafay war a tax ñu ajouter un débat comme ça je pense que y a un problème mais man je pas. fan peut de Senghor xëy na sama génération la parce que damay trouver ci samay génération yu bëri yu mu doon wax xëy na daf du inscrire ci réalité yi ñuy dund dafa am benn euh, wax yoo xam ne kàddu Senghor la woon man mu bokk ci peut-être kàddu yoo xam ne dafa metti woon mooy bi ñuy naan la raison est hélène l'émotion est nègre mais ñun soriwuñ foofu rek ci jamono yi ma jox la benn exemple dañu dëkk Guédiawaye ñu am benn sujet boo xam ne daf ñu daf ñu metti depuis quelque temps mooy ni ñuy gérer littoral bi moom mu wàcc fa fan yi titre bi ñu def ci benn journal au lieu que ñu wax naqar bi sénégalais am euh, bu waa waaye am ci problème mu bi chemise bu débouté ne moom lañ def la une ma ne léegi en réalité Sénégal dafa nekk loo xam ne au lieu ñu am passion ci lu am perte lu am pertinence dafay mel ni ci ay détails mooy émouvoir en fait la la presse sénégalaise ou la population sénégalaise je n'épingle pas la presse parce que la presse en réalité lan la fi nekkee loo xam ne dañ coow mu indi ko teg ko ci place publique bi. bëgguma citer journal bi mais je pense que ñu bëri suivre nañ ko. mais parce de la ah. presse. mënoo mhm. ah, ko jël rek nga doo ko moo tax Bouba. moo tax pour que nit ñu xam nga xam nga xam nga.

pour man la mooy le rôle fondamental de la presse mooy lépp lu nekk actualité. ñu jël ko partagé ko. ma ne la xoolal kenn ci ñooñu parce que métier boo gis même ba sama biir métier man bi ma nekk euh, di nga ci gis ñoo xam ne ñu ngi ciy teg ci yoon gis ñoo xam ne jaaroo jaaraluñ ko ci yoon mais dama la nee tey kooku li ko gën a ñor nekkul problème bi nga xam ne dafa am ci littoral bi mais ministre bi nga xam ne dafa débuté ne semise moom loolu moo ko gën a ñor. may may jàpp ne rek parfois ci politique aussi dañuy demee noonu pour revenir maintenant sur sujet népotisme man xam nga lan laa njëkk jàpp bi bi ma njëkk a jàpp Abdourahmane mooy ay nit bu ñu àndee euh, di xeex benn mbir parce que quoi que l'on puisse dire man bokkuma Pastef Pastef laay njëkkee dafa nekk parti boo xam ne dafa am combat am am vision am projet xeex ko daw ci guddi ak bëccëg daj ci lu ne yàlla def mu dugg ci coalition sénégalais woo leen yëkkati dara dénk leen pour man li njëkk mooy képp koo xam ne da nga bokk ci Pastef ñu jàpp ne ne yow am nga légitimité ci combat boobu noonu le première aspect bu ñuy nominer war nañ la mën a xalaat mooy sama njàngat bu njëkk njàngat bu ci topp pour man toujours ci légitimité boobu képp ku bokk ci combat boobu noonu ñu jàpp ne nga am nga profil ci fi nga la war a tabbee parce que booy nommé nit aussi da nga koy nommé par rapport à son profil am nga maanaam les compétences yu la mën a may ci benn direction ñu fal la fa pour man bu ñu la fa falee am nga légitimité bi loolu Pastef la la deuxième chose Pastef bi muy jël réew mi dafa ànd ak coalition bu ma tëbee Pastef damay jàpp ne képp koo xam ne dafa gunge woon sa parti dans ce combat nga am profil boo xam ne Sénégal soxla na ko ñuy tabb walla ñuy nominer am nga légitimité ñu man loolu laa jàpp beneen bu ci topp bu Pastef génnee maintenant ci coalition bi wala waa coalition bi tëb coalition bi génn fekk beneen sénégalais bu am profil tabb ko aussi pour mu bokk ci ñuy gunge réew mi fu ñu jëm man pour man seen yéwén aussi moo leen fa yóbbu te kenn du ko bañ ñett yooyu man laa njëkk a teg comme aspect yoo xam ne dañ ko war a prendre en compte maintenant ensuite lan moo am solo man pour man fan laay xaar le régime mooy que ne ci ñooñu noonu ñu tabb bu ñu paree rek ñu teg suñu gët seeni liggéey suñu demee ba nga xam ne dañ ci gis tey benn Abdoulaye boo xam ne dañ ko tab bu jox ko poste de responsabilité muy liggéey awalul mbir gi yoon te kenn jubbantiwu ko walla yëkkati ko teggi xool benn malal teg ko fa laa man sama bopp dinaa am problème avec ce régime parce que pour man ce qu'on à la fin c'est quoi c'est de chercher des profils sénégalais qui ont des compétences et qui peuvent aujourd'hui accompagner ce pays dans son développement maintenant rek dans cet aspect dénk rek ki nga wóolu dénk ki nga xam je pense que tey loolu mënul nekk problème sur le népotisme man ban problème laa ci doon mën a am Abdourahmane mooy nga fekk fu Malade mu bokk ak man malal nga baal ma ci terme boobu parce que moom laa gën a am familiarité non honorable honorable Fou Malade waaw parce que pour kii rappeur damay waaj a bu bees album paa waaw xam nga honorable ça va pa bi waaw. honorable pa bi kon honorable pa bi xam nga ah, tey. honorable fu moom man man pour man lan moo doon garaaw. oui mooy tey man ak Malal ñu bokk géejawaay man ma jiite Sénégal ma jël benn direction boo xam ne Malal amu ci benn compétence. benn compétence te sénégalais yëpp reconnaître nañ ne amu ci benn compétence parce que compétence pour man profil la ak parcours mais parce que dafa bokk géejawaay. man ma jiite ma yëkkati ko fa teg fa man loolu pour man moo nekk lu grave mais bu dee compétence yi nit ki am na ko pour man ça ne doit pas poser un débat et pourquoi ce débat pour moi est un peu dangereux mosuma si rak ànd du du léegi de depuis ci ay coowu Aliou ainsi mais tey pourquoi je juge que c'est dangereux léegi malal mi nga xam ne dafa nekk sénégalais jàng am parcours ñëw pour dimbali réewam magam aujourd'hui nekk maire naan Nimzaat magam soxla ko parce que simplement c'est son frère amul droit moom compétence am mu ñëw mettre ko à la contribution de Wakhinane Nimzatt mais si c'est ça y am problème c'est comme si on est en train de dire à un Sénégalais parce que tu as des liens familier avec quelqu'un yow mënoo indi contribution ci domaine boobu et ça c'est dangereux parce que dès l'instant que ñu nekk ci loolu frustration bi ngay bañ Abdourahmane frustration dafay commencer foofu parce que pour man su ma la amalee njëriñ grand frère dëkk ci gox boobu noonu sénégalais yépp nangu ne am na compétence ci wàll boobu c'est pas parce que frère la que moom warul mettre à contribution loolu parce que c'est un comme son grand frère est un sénégalais et pour terminer ci cas boobu man de ba léegi bi ñuy wax népotisme Abdoulaye soo ma ko permettre bu njëkk dañ doon dañ ci doon casse parce que c'est le président mooy nommé kenn man de ba fi ma toog yëgaguma la président Bassirou Diomaye Faye dafa nommé koo xam ne dafa bokk ci moom li ñuy wax ni yëpp c'est sur deux ministres la ñu nekkoon di ci wax mais le ministre aussi il est libre pour moi de choisir son staff et tey staff bu mu mun a choisir munoo enlever le fait que des sénégalais politique ou des sénégalais politiques qui n'appartiennent pas à son parti dinañ bokk ci ñuy liggéey foofu noonu et pour man foofu la ñu waru war a gën a accentuer les choses xool tey jii ni ci ñuy tabb ndax am nañ compétence ma terminer rek ci leen te Abdoulaye tabb boobu xam nga la moo tax parce que dafa am ci nomination yi aussi benn sujet buy def débat mu jaaxal ma mhm. mooy dangay ngay dégg ñuy ñuy coow ci ay bac plus 5 lañ am di coow ci ay jeunes lañ ainsi de suite pour moi c'est un non-lieu parce que en réalité malal mi boo ko tabbee mënoo ko juger lu dul mu commencé nekk ca lan ko comme nag c'est des personnes yoo xam ne bi ñu leen tabbee yàggul ñenn ñi sax jëlaguñu service en réalité mais qu'on leur donne de temps de montrer ce qu'il vaut bu ñu toll may leen seen temps ba ñu liggéey suñu toogee dans jeune année on les évalue suñu rendre compte ci li ñu leen doon xaaree ñu ngi koy matale mais Sénégal loolu la bëgg amul problème buñ ci rak matalulee Abdourahmane nag boobu man d'accord naa ak yow mën nga toog fii nga ne rak la ñu doon bañ mu ngi am ñu ngi fal ab nit amalul njëriñ askan bi ba pare ñu continuer di ko fa bàyyee Euh, alsan Cissé au conseiller. ayca bismillah